salaamaaleykum daanaan yi bon avant tout Naby fii ñu ngi sant Pape Alé Niang bu baax di sant aussi Xalaat TV tey dafa am lu ndaw lu ma bëgg a leeral bu gaaw dam bëgg ñi nekk ñii ci système bi nga xamante ni dem nañu retraite ñoom gëmaguñu ba léegi dem nañu retraite de gëmaguñu ko ba leen ñuy ratatati rek waxaleen dese dem nañu retraite ñoom pare nañu ci politique xamaguñu ko ba léegi ba ñuy wax nag di diaboliser dafa am lu ma bëgg a wax rek patriote yi ñu def ci benn point d'interrogation pare ci tey pare ci Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Sénégal Sénégal boobu ñoom ñoo ni Sonko Macky Sall dafa def lépp ba nekkoo candidat léegi tànnal ñu tànnal Birame Souleye tànnal Abba tànnal ñu ko la neex Sonko ni tànn naa Diomaye Sénégal booteel Diomaye fal Diomaye waa léegi man xoolal ñi ñàkk fayda waye di waye di goo xamante ne taxaw naan Sonko dafa kole jomaay quoi dafa ne wetu jomaay trop quoi xoolal wax jooju Sénégal moo fal Sonko ni ko yow Sonko tànnal ñu mu ni jomaay laa tànn Sonko boobu bu nekkuloon teetu ci ko jomaay sénégalais ñooy dem ci Sonko yëkkati ko ba ci kaw dëj ko ci kanamu jomaay ni ko dëjul ñu fii yow dama bëgg ñu xam loolu ma ñëw exemple bi gën a neex laa leen di wax ban dëkk moo bokk ci dëkk yi gën a développé ci monde bi toujours ma joxe exemple man dinaa exemple yi may joxe kenn du ko dindi parce que dafa tangible dafa leer nañ fi ma nekk maa ngi fan Émirats arabes unis kuy kuy cheikh bi ku gère émirat du cheikh Mohammed Ben Zayed kan mooy vice président bi waxoon naa leen ko sama vidéo bee septième raqam mooy cheikh Mansour président Manchester City bi kooku nii la def ak moom pose seen Mohammed seen fa raq euh, cheikh Mansour ko nii puissance mondiale yépp nga dégg ay Vladimir Poutine ay Biden euh, ku président yu mag yëpp coréen yi ku dugg émirat taxaw Cheikh Mansour ngay gis mu ñëw taxaw bu la Cheikh Mohammed nuyoo ba pare raq ji kole ko rëq comme ni Sonko kole ko basir koo koy ñëw taxaw moom ngeen waxal parce que mag ji xam na kan la andal, xam na kan moo ko sës nii rëq xam na ban gaynde moo ko sës rëq ñun Sénégal bu développé la soxla ñun soxlo yu ay ki la andal la kii comme ay jigen quoi man wa opposé wa wa APR comme ay ay allusion tok ci télé yi il doit la laisser comme man té pas dama la ni xol tok di bëgg jël sama téléphone dóol ko ci souf quoi man ñun mais mais na jël ci sax ku ka neex ci monde bi Basirou tek ko ci wétam fu mu nekk koku top ko oui le problème ko collègue oui le problème sénégalais ñoo ni ko tanal ñu ko yow tanal ñu ko tanal len Sénégalais ñoo bëgg ko nekk ci wetu Bassirou Diomaye fay yow moomu toog di wax naan waru nekk ci wetam yow sànni loo ko carte yow bëggoo bëggooñu yow vote da nga ñoo voté loolu sax bay wax tëjal sa gémmiñ yow bokkatoo toogal ne Sénégalais nga danañ liggéeyam de toogal na le Sonko va gérer le pays ou pas vous allez voir Bassirou Sonko di moog Sonko nii c'est que da ngeen a jël pouvoir ak njiit comme Macky Sall ni ko njiit toog ci pouvoir ëllëmee woon mu teg ko lu rëy Bassirou Diomaye tegu ko dara xam nga Bassirou Diomaye ci lu mu ne. gars yi nan la Sénégal di avancé. wala def benn mandat puus ni duma candidat du dara ci Bassirou Diomaye Faye c'est que yéen a fi nekk yor seen làmmiñ di ratatati xamoo leen ki toog nii nekk président pare benn mandat ni nekkatuma président du dara ci moom. pare benn sénégal sénégalais forcé ko ni ko dool beneen du dara ci moom. ay mok Sonko Sonko waro ko jégué Sonko kay jégué ba mu neex bu ko wul sénégalais yi ñooy suba manifesté wu fess tel ci mbedd yi ni Sonko foo ne demal taxaw ci yottu jomay e fay allez bu fer foot di ñu bëgg ray naan li Sonko da ko may di sant da ko may mok Sonko ni ño bok nday ño bok bay sénégalais ni so Sonko def xam na ko bu ko deful sénégalais sénégalais nga ci di ñu bëgg ray man tay ma ngi bëggon wax sax ci technique ci li tayru sar wax nan ngay amee carte séjour nan ngay sécuriser sa dëkk nan nan nga ko mën a sécuriser ba doo gis benn soldat sax ci mbedd bi man maa ngi bëggoon àgg ak yéen ban système la émirats ak panneau solaire yi kilomètres de panneau bu ci technique laa bëggoon dugg tey mais il fallait ma ñëw tey wàccaat ba ñu waxtaan ngeen xam li gars yi naan Sonko da nga war a bàyyi mooy président du président fii cheikh bi nii laa la wax ne ak Cheikh Mansour da yaakaar sax Cheikh Mansour moo diriger dëkk bi parce que ay nguur yëngalu leen xam na ni ab ndaanaan la ko sekkal ndaanaan bi mooy diriger presque tout ko war ka jege Italie ku ko gérer Italie du premier ministre ba rek la ñëpp xam ana ka fal du premier ministre la ñëpp xam Italie le premier ministre italien le premier ministre rek rek ngay dégg ak yeneen dëkk bëri na mais da nga nekk président rek par dañ la war a bàyyi comme Macky Sall nguur di la yim après gars yi dem di la Sonko dana ko kole li ngeen di bañ de du am ay infiltré ay désordre du am fii Sonko koleel ñu Basiru ba mu neex Biram Suley koleel ñu Basiru Abbas koleel El Malick tout parti bi na dëgër këj liggéeyal Sénégalais yi rek ñun ñëpp ñun ñëpp ñu ngi ci biir nous tous on fait partie de ce travail. incha allah te bientôt ñun ñëpp dina nekk Sénégal. dina ñëw Sénégal bi ñun ñëpp on a beaucoup de à régler wasalaam gars waaw maa dégg nag à chaque fois. gars yi nekk fi Instant Moon ci beneen débat la ñu nekk mooy yàqkat yi nga xam ne dañu doon yàq ñun ñëpp ñu xam leen Instant Moon ci leen la nekk mooy que Ousmane Sonko Kader laa dégg mu koy wax démb te du moom kese mu ne Ousmane Sonko dafa war a dafa war a écarté wu que ñun république la ñu yore benn président ndangam san sawaay o oh, oo oh, o oh, wal nel ma ko kaay bii ma wax la dañoo mbalaan Amadou Fall Diomaye benn deuxièmement mooy tey Instant Moon nii xam nga nday mbili gi kan la Seydina Ousmane Sonko la Diomaye bu toogee président c'est grâce à Seydina Ousmane Sonko liggéey Seydina Ousmane Sonko la Sénégal mooy am lu moo mooy am ren lu mësul am ci histoire politique Sénégal fal benn président am ñaar ñun ñaari président lañu am muy monsieur son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay ak Seydina Ousmane sonk président Seydina Ousmane Sonko mu sell mi mu coiffé lépp boo bëggee dégg-dégg xam nga loolu ngeen di bañ a dégg mais ñu ak yéen te nii temps politique jeex naa ah.

dafa ñëw bu taxaw la patrie avant le parti kon bu leen leen fekk seen débat boobu noonu seen ñëfu wayet yooyu ñuy def mais nag Serigne Saliou Gueye ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax ndax képp ku toog ci kanamu devant tous les quelqu'un di fenn da ngay taxaw directement ne ko hey li ngay wax tegoo ko fenn te contradictoire ay ponkal yoo xam ne toog xam nga napp sénégalais yi yooyu fi jeex gis nga mën naa nuy kiraay bu nekkoon suñu diggante ak yéen ngeen ñeen napp naan ñu ay la constitution est régie par la nangam looloo fi jeex ëpp la ñu xam-xam dàqu leen ñoo jàng gën la ñoo mën a ñun dañuy xool yi Sénégal ngay gis koo xam ne daara ja la jóge instant mu joni Seydina Ousmane Sonko moo ko fi indi jóge daara ja te lépp loo ko wax ci droit mu wax la ko expliqué ko Cheikh Bara Ndiaye nga nii jàngut alxuraan la jàng ay ñoom la la ñu daara ñu ngay gis nii ay xel comme électronique Euh, ñooñu noonu ñëpp ngay dégg ñuy wax ci loo xamante ne nii boo toogul université mënoo ko tari parce que da ngeen a jëloon benn complexe lal ko suñu diggante ak yéen dañuy jéem a jaar affaire de intellectuel affaire de intellectuel moo fi jeex gouvernement bi ñun population bi ñoo koy contrôler léegi ñun ñooy xool lu ñu neex suñu président defal ñu ko parce que dañ koo fal pour mu defal ñu ko te incha allahu rabbi si ci ñoom benn benn constance boo xam te exemple li ñuy bëgg a def kenn ko tere def c'est quoi yen yen yen yen bëggu en Sénégal parce que bu ñu nee ngeen a bëgg Sénégal yen nit ki wul sax defagul sax passation de service yen ñëpp ngeen ngamp sen làmm ñi naan wecc wecc wecc wecc wecc mais à part de le deux day jeex tak man mom sama combat leen la inshallah allah rabi képp ku nekk ci biir réseaux sociaux ma gis la ngay difamé wala ma gis la ngay wax lo xam leeru la muy sëriñu tay yàq muy ku mënti doon barke alcorane dama lay porter plainte pétition lay lijeenti out ay signature yobul le cybercriminalité parce que Sénégal il faut ñu défal ko raay da wara a par force ñii toog ci kii di saaga ndey nit ñi nekk ci dëkk bi barki alxuraan yi ñëpp dañ leen teg ci yoon opposant yi nga xam ne ñooy opposé wu nag waa xam nga Benno Bokk Yaakaar bu ngeen di opposé opposé wu leen ko comme ñu ko opposé woo teg ko ci ay cadre de programme teg ko ci li nga xam ne moom mooy débat d'idées ku fi indiwul débat d'idées nga taxaw fi taf fi nit di ko saaga dañ lijjanti ba xam fi nga dëkk dañ lay porter plainte yóbbu la yóbbu la euh, cybercriminalité ay affaire cas yooyu noonu ñëpp ay jeex ci dëkk bi yéen yéen vous n'avez absolument rien compris gis nga ñun ak yéen dictature bu tar lañ leen di tagal bu leen neexee na ngeen wax lu leen neex man sama nekku ci